man la man la soo ko jàppoon ci anam yoo xamante ne ñun jàpp nañu anam yu mel kenn waru ci mën a téye nit rawatina koo xamante ne da nga yor sa njaboot yor sa famille mbokki Sénégal man seen soxna man maa ñëw di leen di leen di leen joytu di joytu gu may joytu nag maa ngi ciy tàllal loxo sama mbokk jigéen yépp parce que ku ne xam na ni yor ay waajuram ndax kooku soo ko jàppee xañ ko liberté kuy dundal njabootam ndax kooku soo ko jàppee xañ ko liberté kan mooy jox éducation bu bu mat njabootam gi mbàyyi ginnaaw ndax loolu kilifa yi nga xam ne teg nañu lu metti ñoo ngi ñaan nag ñu féexal leen ci nu mu gën a gaawee di di di ñaawlu di di ñaawlu lu metti lu ñu teg heure bu ñu xëyee dinañ am yaakaar bu fekkoon ne tey dañ leen a àtte teg leen ci lenn ni ah ñii lii moo leen fi xaar ñun dinañ xam suñu soor pour pour ñu am espoir heure boo xalaatee mandat de dépôt bi sa sa yaakaar dafa yàq day yàqee ko parce que da nga naan lii kañ lay jeex kañ lay fan lay yem doo xam loo wax looy wax sa njaboot doo xam looy teg si sa loxoy njaboot te loolu lu metti la lu diis la ñoo ngi ñaan képp koo xamante ne nag am am na am na ndimbal bu ñu ci mën a ndàngal gone ya nga yoroon mënoo dem dimbali sa njaboot loolu lan lay jariñ lu jariñ lu mu jariñ réew fan la eggale réew xamuñu ko ñun nag li ñuy li ñuy jooy di ko naqalu suñu mbokk jigéen ñi lañ ciy wow ñoo ngi ciy woo association féministe yi ñu ñëw jàppale ñu ñoo ngi ciy woo jigéen ñi nga xamante ni jàpp ñu seen borom kër sax mais ñoo ngi ci biir kër gi te xam ne seen borom kër mas na absenté mu metti ñoo ñu sax ñoo ngi leen di woo ñun ci suñu combat bi pour ñu féexal suñu borom kër yi ñu dellu si njaboot gi suñu ñoo ñi nga jigéen ñi li ñuy gën a ñaan li ñuy gën a ñaan nag mooy ñu bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a rafetee duñu leen topp dara féexal leen ñu dellu ci seen i njaboot. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xañ na nag wax yombul. mais situation day toll foo xamante ne soo noppee day mel ne li ñu la teg dalaa neex. te li ñu teg neexuñu gënaluñu. fii lañ jàppee ni fii lañ ko mën a jooytoo kon ñoo ngi koy jooytu. te ñi ñu koy jooytu tamit buñ ñu. yoon teg ko loxo.